أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله sëriñ bi mi ngi yëkk ci kàddu. maa ngi leen di nuyu. nee na mi ngi leen di nuyu. di nuyu bokk yépp nee na mi ngi nuyu bokk yëpp. Ah, di leen ndokkeel ci bis bi. nee mi ngi leen di ndokkeel ci bis bi. bis la boo xam ne. nee na bis la boo xam ni. koo ko fonk yàlla fonk la ku ko fonk buur yàlla fonk la. ndax màggal yonent bi sallallahu na màggal yonent bi sallallahu barkeelu la rek. nee na barkeelu la rek. waaye fekk nga yàlla màggal ko ba nee na fekk na yàlla màggal ko ba pare. kon màggal ko. nee na kon màggal yonent bi. bëgg màggal la rek. nee na bëgg màggal la rek. waaw. Ah. noo ngi nuyu ñëpp. nee na mi ngi nuyu mbooleem ku fi teew. lii nga xam ne moo ñu fi dajale. nee na li nga xam ne tey moo ñu fi dajale. di màggal mawludu. di mawlu màggal mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam. di ca yaakaar ndam. nee di ca yaakaar am ci ndam. di ca yaakaar gu yokku. nee di ca yaakaar yokku. Ah, ci màggal goo xam ne. nee na màggal goo xam ni. dana ko fi fekk. nee na danu ko fi fekk. sunuy maam def ko nee na sunuy maam ñu def ko ndax maam Seydil Aji Malick maam Seydil Aji nee na maam Seydi Aji ak maam Seydi Aji Rawan radiyallahu taala anhu anhuma fii la ñu defe gàmm nee na fii la ñu jëkke defe gàmm ci sanc Ali Ngom nee na fii ci sanc Ali Ngom la ko jëkk a defee nee na foofu lañu ko jëkk a defee wax nañu ni maam Seydi Aji Rawan wax na wax na ni ba ñu ko defee. ba ñu ko defee. ndeyam. moom. yaayam. yaayam. moo am genn ganaar sequ tiir. yaayam moo am genn ganaar sequ tiir. moom lañu ñu leen reyal ci guddi nee na moom lañ leen reyal ci guddi ga. ndax ñoom ñaar rek ak seen gàmm. ndax ñoom ñaar rek ak seen gàmm. ca déwan sa. nee na ca déwan sa. ba ñuy gàmmuwaat. ba ñuy gàmmuwaat. nee ndeyam. yaayam. moo am bëy. nee na moo am bëy. moom la ñu nee na moom la leen rendil. ci sanc Aly Ngom. nee na fii ci sanc Aly booba fii amagul. booba paal gi amagul. waaye bàyyi wuñu ko. nee na waaye bàyyi wuñu ko. di ko def. di ko def. ba mu yegg Tiwaawan. nee na ba mu àgg Tiwaawan. ñu nekk ci. nee na ñu nekk ca. ba mu yaatu. ba mu yaatu. ba mu yaatu. mu yaatu. yaatu gi nag. nee na yaatu gi nag. ñoom. ñoom. ba mu bëggee yaatu. ba mu bëggee yaatu. kenn ku ne. kenn ku ne. wax nga ci sa lamin. wax nga ci sa lamin nii. nii ma gisee gàmm. nii ma gisee gàmm. bu doon xara. bu doon xara. danaa jënd danaa ko jënd rendi ko. danaa ko jënd rendi ko. ndax baaxaluñu ko. ndax baaxaluñu ko. ndax gàmm. ndax gàmm. dañ ko daan def. dañ ko daan def. waaye dañu daan teet. dañ daan seet. dañu dañuy daan bañ. dañu daan bañ. jaxasoo góor ña ak jigéen ña jaxasoo góor ña ak jigéen ña. dañu ko daan bañ. nee na dañu ko daan bañ. ba ñu ko gisee nag. nee na ba ñu ko gisee. lañ ci génn. nee na lañ ca génn. bàyyeenu ko ñun. nee na bàyyee nu ko ñun. kon ñoom. kon ñoom. ba ñuy baaxle. ba ñuy baaxle. dañu tonni lu baax la. dañu tonni lu baax la. ba lu ñaaw la ñëw. ba lu ñaaw la ñëw. nun nu bàyyee. ñun ñu bàyyee nu ko ñun ñii. nu fonk ko nag. ñun ñu nu fonk ko lool. kon. kon. ñun. ñun. li nu am. li nu am. mooy lu ñaaw la. mooy lu ñaaw la. fonk nañu ko lool nee na fonk nañu ko lool nag. ba di ko def ba di ko def. te kenn sañatu ko bañ. nee te kenn sañatu ko bañ. ndax bis bii tey. ndax bis bii tey. du nu ku mel man ak ku mel na man. moo koy na moom ak ku mel na moom. koy taamul sama bopp. nee na moom moo ko taamul boppam. yéen ñëpp àndoo taamoo ko. nee na yéen ñëpp ànd ko taam ko ak moom. taamoo ndoo ko. ñu taamoo ndoo ko. ñu di ko def. ñu di ko def. Ah, yàlla nag bare na yërmande. nee na buur yàlla bare na yërmande. te ku yëngatu jëm ci moom it. te ku yëngatu jëm ci buur yàlla. jëm jaar ko ci yonent bi. jaar ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. dana la jéggal. nee na yàlla dana la jéggal. loolu rek lañ ci yaakaar. nee na loolu dong lañ ci yaakaar. yàlla nañ ko defal. nee na yàlla nañ ko ci buur yàlla defal. Ah, ba nga xamee ni ñooñu def nañu loolu. nee na ba nga xamee ni ñoom def nañu loolu. maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala. maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu dafa sant rawaan muy gàmmu ci paal dafa sant ni maam rawaan nga gàmmu ci paal ma gàmmu Tiwaawan man ma toog ca Tiwaawan ndax ñu noppal ndax ñu noppal ñii jógee ndarak ñii jógee ndarak ñii jóge waalo ñii jóge waalo ñooñu bu ñëwee ñooñu bu ñu ñëwee nañ ñëw ci paal nañu ñëw paal ñu màggal ñu màggal ñu dellu ñu dellu ñu jógee ci gannaaw ndakaaru ñu jógee ci gannaaw ndakaaru ñu ñëw Tiwaawan ñu ñëw Tiwaawan ñu màggal ñu màggal ñu dellu ñu dellu loolu lañu ko sose woon nee ñoom loolu lañ ko sose woon waaye bi ñu ko sosee nee na bi ñu ko sosee loolu amoon na. loolu amoon na. waaye. waaye. ba nga xamee ni yàlla indi na xéewal. ba yàlla indee xéewal. indi paas. andi paas. andi paase. andi paase. ak poos. ak poos. ah yëpp dafa jàppandi. nee na yépp dafa jàppandi. ba nga xam ni. ba nga xam ni. kenn xawatul xam loo bëgg. kenn xamatul sax loo bëgg. boo doon dem di gàmmu ji nee na boo doon dem di gàmmu ji doo xam loo bëgg nee na doo xam sax loo bëgg boo yeggee it boo yeggee doo xam loo bëgg doo xam sax loo bëgg ndax ñu néew nee na ñu néew ñoo ciy dem di gàmmu ji ñooy dem di gàmmu ji gis yonent bi sallallahu gis yonent bi sallallahu alayhi wa néew na nee na néew na te ñu daan gàmmu ngir yonent bi nee na ñi daan gàmmu ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ñëwee ci gàmm gi. nee na bu ñu ñëwee ca gàmm ga. ñu bare ñu bare. daañu daañu gis yonent bi sallallahu daañu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waaye ñun ba nu ko jaxasee na nee na ñun ba nu ko jaxasee. la ca fépp ceeb dugg. la ca fépp ceeb dugg. ceeb suuf. fépp suuf dugg. kenn mënu ko sàq mi. kenn mënu ko sàq mi. warax rek. nee na da nga koy warax rek. te ñun dañuy warax rek. nee na ñun dañuy warax rek. kenn dootu ko sàq mi. nee na kenn dootu ko sàq mi. kon ñun. kon ñun. lii nuy def. nii nuy def. yaakaar yàlla. nee na yaakaar yàlla. di yaakaar. di yaakaar. sunu kilifa yëkk fi bàyyi. sunu kilifa yëkk fi bàyyi. lu leen ca yàlla jox. lu leen ca yàlla jox. nu nu koy yaakaar. nee na ñun ñu yaakaar ca. adduna. nee na adduna. yàlla ko moom. yàlla moo ko moom. bàyyiwu fi kenn. nee na bàyyiwu fi kenn. bu fi doon bàyyi kenn. nee na bu fi doon bàyyi kenn. ka mu bind ngir boppam. ka mu bind ngir boppam. gindi bindee fi yëpp ngir moom. yëpp ngir moom. mu bàyyi ko fi. kon nee yàlla bàyyi ko fi. ku ñëw gis ko. nee na ku ñëw gis ko. waaye soobu ko. wante yàlla soobu ko. ba mu fi nekkee la mu war ne. nee na fu mu nekk. ba mu fi nekkee. ba mu fi nekkee. ba li mu nekk mat. ba mu li mu fi nekk mat. da ko fi jëlee. nee na yàlla da fi jëlee. waaye nag. waaye nag. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa maa ngi leen di bàyyil. nee na maa ngi leen di bàyyil. ñaar. ñaar ku ci jàpp. ku ci jàpp doo sama gannaaw sama ganaaw allah alquran alquran wa sunnati yooyu ñaar nee na yooyu ñaar maa ngi leen koy bàyyi nee na maa ngi leen koy bàyyi su ngeen ci jàppee nee na bu ngeen ci jàppee du ngeen réer nee na du ngeen réer ah waaye nag waaye nag alquran wa sunnati alquran ak wa ngir. ngir yi nga xam ni. ngir yi nga xam ni. ci la war a julli. ci la ñu war a julli. ñeent la. ñeent la. kon kenn ku ne. nee na kon kenn ku ne. am na tali tali bu mu defar. nee na am na tali mu defar. boo xam ne ci nga war a jaar war a jaar. bul jaxase. nee na bul jaxase. booy booy dem ci yoon wi. nee na booy dem ci yoon wi. jaaral ci yoon woowa. jaaral ci yoon woowa. bul bu ko boolee ak beneen. nee bu ko boolee ak beneen. sunu réew nag. nee na sunu réew nag. fii. fii. nun ñun. sunu sunna. sunu sunna. dafa li ci ëpp. li ci ëpp. dafay nekk limaamu Malick. dafay nekk limaamu Malick. lu ci bare. lu ci bare. ci lay ne. ci nekk. waaye nun ñii fi nekk ñëpp. nee na ñun ñi fi nekk ñëpp. koo ci doon laaj loolu. koo ci doon laaj loolu. du la ko wax. nee na du la ko wax. du xam ban yoon la ne. du xam ban yoon la ne. kon xamuloo foo ne. kon xamoo foo ne. kon ku xamul yoonu Ndakaaru. ku xamul yoonu Ndakaaru. yoo xamuloo yoonu Rosso Sénégal. xamoo yoonu Rosso jëm. nee na fan nga jëm. fan nga jëm. nee na fan nga jëm. waaye boo ko jàngee. nee na wante boo ko jàngee. ba xam ko ba xam ko. bu bu yàlla bu yàlla dogalee. bu yàlla dogalee. daa yegg fa nga jëm. daa fa nga jëm. waaye boo jëmee Ndakaaru wante boo jëmee Ndakaaru jàpp yoonu Rooso Sénégal jàpp yoonu Rooso Sénégal bala ngay yegg Ndakaaru bala ngay àgg Ndakaaru dana yeex nee na dana yeex de kon sunna yi nee na kon sunna yi ngir yi ngir yi ñeent la ñeent ngir la ñun nag li gën a rée ci sunu réew lu bare ci sunu réew Malick Malick imaamu Malick ah, yàlla yàlla may may ñu taxaw ca yàlla yàlla may ñu taxaw ca Ah, guddi um, mawlid bi it nee na mawlid bi ki ñuy tagg ki ñuy tagg yal na yàlla ma yal na nu yàlla may yal na nu buur yàlla may nu tagg ko ñu tagg ko te jëriñu ci te jëriñu ci gi nag nee na tagg gi nag kiy tagg kiy tagg di way yonente bi sallallahu di way yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dana am tuyaaba nee na kooka dana am tuyaaba ka koy déglu nee na ka koy déglu dana am tuyaaba nee na dana am tuyaaba ka cay joxe dara nee na ka cay joxe dara dana am tuyaaba nee na dana am tuyaaba ka ko fekk tey nelaw. nee na ka koy fekk tey nelaw. dana am tuyaaba dana am tuyaaba. ñooñu. nee na ñooñu. ñoo ki koy tagg. ñoo ki koy tagg. ñoo yem ci ci bu ñuy am tuyaaba. ñoo yem ci tuyaaba bu ñuy am. ñoo ko yemal ñoo koy yem. moo tax ngeen sonn yéen. ñëpp nee na moo tax yéen ngeen sonn. paas paas. ngir fekkee ji ko. ngir fekkee ji ko. ci benn béréb. ci benn béréb. béréb yi ñuy yaakaar nag. nee na béréb yi ñuy yaakaar nag. di ko yaakaar di ko yaakaar. ci barke maam Seydil Aji Malick ci barke maam Seydi Aji Malick. bérébu maam Seydil Aji Rawaan bii. la ci bokk nee na gërëb bérébu maam Seydi Aji Rawaan bii ci la bokk. mag ñi fi nekkoon. wax nee na mag ñi fi nekkoon wax nañ ni. bu ñuy jógee sanc. nee na bu ñu jógee sanc. di dem paal. nee na di ñëw paal. dañuy romb fii. nee na dañuy romb fii. bu ñu rombee fii. nee na bu ñu rombee fii. maam Seydou Hadji Malick. maam Seydou Hadji Malick. ne ah, maam Rawane. Ah, fii de. fii de. ci mujjug jamono. ci mujjug jamono. dana am waliyu fi ñëw. dana am waliyu bi fi ñëw. dana fi def jumaa dana fi def jumaa doj ya Ibrahima sànni woon. ca Ibrahima sànni woon. ca Makka. ca Makka. am na bu dal fii. nee na am na bu dal fii. ma fekk kat sama way jur wax ko. nee na moom moo ko fekkee way juram mu wax loolu. ñu wërngal fi ab wërngal. nee na ñu wërngal fi benn wërngal. ci kanamu eh, ci ci kanamu déeg bi. nee na ci kanamu déeg bi nekkoon fii. xur wi rek nee na fii xur la woon. ba tey day taa de. nee na ba léegi dafay taa. ci kanamu xur wi. nee na ci kanamu xur wi. nee na def nañu fi wërngal. def nañ fi benn wërngal. am nañu ay at. am nañu ay at. di jóge sanc. di joge sanc. di ñëw di ko bay. di ñëw di ko bay. di ko di dellu. di dellu. ba yàlla dogal. ba yàlla dogal. ñu ñëw dëkk si fi. nee na ñu ñëw dëkk si fi. bi ñu fi dëkk see. nee na bi ñu fi dëkk see. ah te booba sëñ Paal. nee na booba sëriñ Paal. ceddo daf fi mag. ceddo daf fi mag. bare bare xeer neex. bare xeer ba nga xam ne. ba nga xam ni. lu jot rek. lu jot rek. ñu defee ni. ñu defee ni. xeer neex nee na xeer neex neex. xeer nañu koy waxe xeer neex. xir neex ñi nga xam ne dañuy gisaane ak nee na ñi nga xam si dañuy gisaane ak dañuy seet dañuy seet dañuy sotti ndox dañuy sotti ndox ak waaw ne xir neex nee na xir neex mooy bu xaaba yi bu xaaba waaw kañ ah, bu xaaba yaa ko xam bu xaaba nee na bu xaaba yi daf fi bare nee na daf fi bare woon lool lool bu ñu nee daf fiy def jàkk na nee na ba mu nee daf fiy def jàkka cëppal ca Paal. waa Paal ni kenn du fi def jàkk. nee na waa Paal ni kenn du fi def jàkk. ndax dañuy dàq sunu xeet. nee na dañuy dàq sunu xërëm yi sunu buxa waaw sunu buxaaba yi dañu dañu leen di dàq. dañu leen di dàq. waaye. waaye. yàlla dogal. yàlla dogal. ñi fi nekkoon. ñi fi nekkoon. dëkkoon fii booba. dëkkoon fii. amanteeg maam Seydil Hadji Malick. amanteeg maam Seydil Hadji Malick. di waxtaan ak moom. nee na di waxtaan ak moom. ba maam rawaat nangoo ñëw fii ci Paal. ba maam rawaat nangu jóge sanc Aly Ngom ñëw fii ci Paal. ba mu ñëwee nag. nee na ba maam rawaat ñëwee nag. gannaaw dëkk baa nga Paal. ganaaw dëkk baa nga Paal. mooy Paal gu mag gële. ñu ni mu ni foofa lay def jumaa ji. nee na mu ni foofa lay def jumaa ji. ñu ni koy doo ko fi def. ñu ni doo ko fi def. dafay dàq suñu xërëm dafay dàq suñu xërëm yi. demal fu la neex. nee na demal fu la neex. waaye. waaye. yàlla dogal. yàlla dogal. muy ñoom rek. muy naxanteeg ñoom rek. di naxanteeg ñoom rek di naxanteeg ñoom rek. ba nga xam ni ba nga xam ni. def na teraanga ju ko jar. def na teraanga ju ko jar. moroomi sëñ Paal ya. nee na moroomu sëriñ Paal yi. ni ko demal fekki rawaan. ni ko demal fekki rawaan. rawaan mi kat am na pas-pas. rawaan am na pas-pas. lii muy def kat. lii muy def kat. boo ko ci dimbali wulit boo ko ci dimbali wulit. dana ko def dana ko def. nan ko fekki. nan ko fekki. ñu ñëw nee na ñu ñëw. ñu daal di ni ko kon tabaxal jumaa ko kon tabaxal jumaa ji. mu natt ca xolu xolu ca biir paal. nee na mu natt ca biir paal. paal gu mag gële. xurwa xurwa. ñu ne ko déedéet doo ko fi def. ñu ne ko déedéet doo ko fi def. kon nag kon nag. mag ñi fi nekkoon. mag ñi fi nekkoon. daan nañu dajaloo. daan nañ dajaloo. di ko bayal tool. di ko bayal tool. bu bu ñu bayee ba noppi. bu ñu bayee ba pare. andi tool bi ci jàkk ji tool bi ci jàkk ñu di ko jëriñoo ñu di ko jëriñoo ku néew doole nee na ku néew doole boo ñëwee ñu jox la nee na boo ñëwee ñu jox la mu tudd baytamaal nee na moo tudd baytamaal ci néeg bi ci jàkk ji la nekkoon nee na néeg ba ci jàkk ji la nekkoon taaxum gan nee na taaxum gan daan nañ ci denc lu bare nee na daan nañ ci denc lu bare ah, ñu d'accord foofu nee na ñu d'accord foofa waaye di waxtaan rek wante di waxtaan rek waaye ñenn ñi wante ñenn ñi ñu ni daal sëñ Paal ñu ni sëñ Paal xam nga na ngay def xam nga nooy def nan fekki rawaan nanu fekki rawaan ñu ñëw ñu ñëw ni rawaan ni rawaan defal jumaa ji defal jumaa ji rawaan ni ko ni kon baytamaal lañu koy def ne maam rawaan ni baytamaal lañu koy def ñu ne ko déedéet ñu mun néeg bii nga koy def sa nga koy def daanu ñëw daanu ñëw ñu def fii jumaa ji nee na ñu def jumaa ji fii mu nekk yaatuwul nee na yaatuwul waaye ñëpp a ngi fi woon wante ñëpp ñoo ngi fi woon moo tax jumaa ji yaatuwul nee moo tax jumaa ji yaatuwul ndax ñoo ko def ko sa néeg ndax ñoo ni ko def ka sa néeg sa néeg bi sa néeg bi moom ngay def jumaa ji moom ngay def jumaa ji ah ah nee na booba mille huit cent xëy nangam ay mille huit cent nangam la waaye waaye ci loolu lañ jàpp nee na ca loola la ñu jàpp ba tabax fa jumaa ji ba tabax fi jumaa tabax fi jumaa ji tabax fi jumaa ji di ci nekk di ci nekk ba ñu baax ñi ñëw ba ñu baax ñi ñëw tabaxal ko néeg tabaxal ko néeg néeg tabax bu rëy nee na muy tabax bu rëy mu ni moom am naa gàcce mu ne moom am na gàcce néegu yàlla bi néegu yàlla bi ñu tabax ko ban ba noppi ñu tabax ko ban tabaxaat néeg tabaxaat néeg ciment ciment ngir man ngir man am naa ci gàcce am naa ci gàcce man daal man daal tabax ngeen ko ba noppi tabax ngeen ko ba pare wàcce leen ko foofu wàcce leen ko foofu du ma ci dëkk du ma ci dëkk du ma ci dëkkal sama du ma ci dëkkal sama njaboot man maa ngi nekk ci juma ciment maa ngi man du ma maa ngi ci ciment wuti ciment wuti ciment ba tabax juma ba tabax juma booba defe naa ne yàgg na sax ci mille neuf cent nee na booba àgg na ci mille neuf cent nekk ci nag nee na mu nekk ci nag nekk ci nag nekk ci nag ba war a soppi. ba war a soppi. mu soppiwaat ko. mu soppiwaat ko. tabaxaat ka ciment. tabaxaat ka ciment. defaat ci ñeenti sooroor. defaat ci ñeenti sooroor. moo ci nekkoon. nee na ñeenti sooroor moo ci nekkoon. ba nu judd fekk ko ñoo ne ñun ba nu judd fekk ko fi. Ah, ba tey ñu nekk fi. nee na ba tey ñu nekk fi. waaye. waaye. ba ñu bàyyee ba mu bàyyee gàmmu. nee na ba mu bàyyee gàmmu. ku ñëwati. ku ñëwati. mu leen dem leen ci si si Lamine. nee na ñu leen dem leen ci maam Lamine. mooy waajuram. maam. wutatuma bëggatuma. nee na wutatuma bëggatuma. manatuma manatuma. kuy joxe na dem ci kuy dem ca maam Lamine. kuy ñaan it. kuy ñaanlu. na dem ci na dem ca Lamine. ñu koy taxawu ba ñu. nee na mu koy taxawu. ba ñu yegg si fii ci ba ñu agsi fii ñu agsi tey. tubaarkalla nee na tubaarfakal. ba ngeen ñëw fii. ba ngeen ñëw. di topp loolu. di topp loolu. ñun tànk yooyu rek. nee na tànk yooyu rek. ca la nuy ne. ca la nuy ne. li nu ci xam. li nu ci xam. ca la nuy ne. ca la nuy ne. ba bala ñu fiy jóge. ba bala ñu fiy jóge. Ah. ndax sunuy baay. nee na sunuy jur yooyu lañu taxawe taxawee woon. loolu la ñu taxawee woon. sunu mag yi fi jaar sunu mag yi fi jaar. loolu lañu ñu taxawee noonu la ñu woon. kon nu it kon ñu nit. noonu la ñuy taxawee noonu di di ñaan yàlla. di ñaan buur yàlla. dàqal ñu seytaane. dàqal ñu seytaane. ba bu nu jaxase. ba bu nu jaxase. yàlla sàmm. yàlla nu buur yàlla sàmm. sàmm leen. sàmm leen. def jàmm. def jàmm. ci réew mi ci réew mi. def ko ci mboolem jullit. ci mboolem jullit. réew mi. yàlla def na fi jàmm lu def na fi jàmm lu bare lu bare ndax sunu réew mi ndax sunu réew mi maam say laaji rawan maam say jaaji rawan nee na du bayukaay nee na du bayukaay du commerce kaay du commerce ku bëgg a béy ku bëgg a béy da ngay dugg saxaar da dugg saxaar wàcc gaaru Kaffrine wàcc gaaru Kaffrine commerce ku bëgg xaalis ku bëgg xaalis da ngay dugg saxaar da ngay dugg saxaar wàcc gaaru Ndakaaru wàcc gaaru Ndakaaru ku bëgg nag ku bëgg ku bëgg ku bëgg toog toog di jàng ci kaamil bi. di jàng ci kaamil bi. di di jàng ci kaamil bi. di jàng ci kaamil bi. di julli ci jàkk ji. di julli ci jàkk ji. lu ñëw nu bokk. ba ñëw ñu bokk. ñi fi nekk ñëpp. nee na ñi fi nekk ñëpp. loolu la ñu fi nekkee. nee na loolu lan fi nekkee. fii du bayukaay. nee na fii du bayukaay. du nu bay. nee na du nu bay. ba am ca dara. ba am ca dara. waaye bay rek. wante bay rek. alhamdulilah. alhamdulilah. jërë nee na jërë ngeen jëf.